tey mooy dama ànd ak président Papa Diop di liggéey moom fii ci Touba depuis 2014 ba tey may liggéey ak moom ànd ak sama ay mbokk ak sama ay xarit ñu am ci man gëm-gëm am ci man yéene tey nag ma woowoon leen am ci lu ñu jëm. bëgg ñu waxtaan ci bëgg ñu ànd ceeg man gën a am ci man confiance bëgg leen xamal ne président Pape Diop am na ci man confiance kon ñoom ñii di sama ay mbokk ñoom it ma di leen feddali sama kóllëre président Pape Diop bëgg ñoo li ñu jëm ñoo xam ci yoon wiñ ci jëme ak ni ñu ciy jëme man wax yoon wiñ ci nar fas yéenee sooboo mooy yoonu xam nga kilifa yii nga gis xam nga ne caaxaan yëkkatiwu leen dawuñu média ndax lekkuñu dërëmu kenn. ay nit lañ ñoo xam ne yàlla rek moo leen ñor ñu xam ne nag seen jigéen bii tamit li leen ñor moo ko ñor moo ko ñor loolu am ci tax ñu am ci man cofeel ak yéene gunge ma ci président Pape Diop ba yéene ji nga xam ne man am naa ko ak mébét mi ma am ci Daaru Xuddoos gii ma dëkk ak ñoom ñii samay mbokk ñu ànd kook man incha allah. naka ngeen fas yéene def ba mën a gagné élection yi di ñëw. wax dëgg yàlla man damaa defe ne gagné Touba dina yomb ci man. ndax man néguma ba jub élection doo a wuti samay mbokk ak samay xarit man 2012 bi ma amee 13 ans laa ñëw Touba sama lépp dama koo delloo Touba delloo ko askan wi mbooloo mi fi daje jafe na nga woo leen te joxoo leen ay kaar wala ay paas wala nga jox leen ay moyen wala nga dig leen dara mbooloo mi diguma ci kenn dara sama jëmm rek laa ci présenté woo leen ñu wuy si ma kon xam nga ne loolu néguma ba jëm élection di doog a wuti ngànnaay wóolu naa sama bopp te wóolu naa samay mbokk man gëm naa ne président Pape Diop suñ koy laaj parrainage man maa war a joxe lépp ndax man liggéey naa ko vingt ans ci Touba. léegi fan si ginnaaw dégg nañ ministre de l'intérieur mu wax ne ñi nga àndal loo di ñaax. ah ñi ma àndal nag xam naa ne jatu sax taxul socc socc taxul ñu naan nañ jatu leen ndax waa Touba moom xam nga ne ba ñuy limi xeetit boole wuñ cay maam wax dëgg yàlla ba ñuy wax ñu jëlee jëli carte d'identité ñu ko jëliwun Touba moom taxul soo duggee ci biir euh, préfecture ba gis waa Touba ni ñu volonté woo xam nañ ne li leen naqari ci seen xol xam nañ liñ koy fajee fii moom taxul ñuy wax moom. gis nañu Macky Sall fan a dugal waaw wax dëgg yàlla man damaa gisoon yenentu yàlla xaaru na ñu jàngal ma xissa bi moo tax tiituma ci dara wax dëgg yàlla ñu ko gënoon a metti leen nguur rek a fi nekk suñ borom dafa xëy màbb seenu nguur màbb seeni pale loola jeex ñu fàtte loolu moom mu ñëw tey loola wax dëgg yàlla aw ma ci sikki sàkk ne nguur gu dul nguurug suñu borom gi dina jeex kullu man alayha faanin wa yabqa wajhi rabbika zul jalaali wal ikram président Macky Sall na xam ne yàlla moo ko fi teg te dina ko fi jële kon na rafetal aw yoonam bu fi jugéen mu juge fi jugéen wu rafet Khalifa wax dëgg yàlla soo ma laajee ci xalifa Sall sama xam-xam bëriwu ci li nga may laaj mu yëngal sama xol mooy mbayture mi ma bokkal baay Mbaye Touré mi ma bokkal baay maa demeel faat ma jee askan wi mu bokk kuy détourné bokk nekku ci jaamu yàlla ak liggéey rek lañ xam Mbaye Touré bi muy taral ay bokkam di liggéey boobu président Macky Sall pareegut ay études yaakaar naa ni un milliard huit cent bu fekkoon ne moom rek moo tax ñu tëj ko yaakaar naa bu ñu woowoon ñun ñu fay ko du jar ñu di ko tëj cinq ans te it gis nañ fi nag lu jar a tëj cinq ans te tëjuñu leen cinq ans deux ans sax wax dëgg yàlla. mbayture Touré jaamu yàlla ak liggéey rek sëñ Mountakha mee ko seeti xam na ne Mbaye Touré du kuy détourné askan wi mu bokk kuy lekk fukki dërëm yu lewut nekku ci wax dëgg yàlla xalifa Sall nag man taxul ma xam ko mais ku ma yërëm la ndax nit ku seel la may nurool xaw ma ci dara nag ma saxit na illaa bi na alim du ma seeda lu ma xamul waaye nag ñi ngi woo suñu borom subhanahu wa taala doxale nañ koog suñu digganteeg nguur gi fi nekk mu dimbali ñu ci moom ndax jaay doole gi ëpp na néewal doole gi ëpp na li ñu fi gis daal ci lu metti bëri na. Touba yan jafe-jafe nga man nag man nga koy laaj ndax man damaa dund Touba. man bi ma amee 13 ans ba tey maa ngi ci Touba di xuslu muy metti lool fu metti metti Touba nekk amul kuñ ko mën a laaj ku dul man Mariama Touré dugg naa ci waas jën yeeg fóot meeg koo ci woo man maay seen présidente man maay seen ambassadrice maa ngi ci biir hopital yi xanaa barki démb rek li tax ma woote di sant waa Touba bu baax di sant hôpitalu Matlaboul Fawzeyni bii am naa sama benn dëkkandoo boo xam ne mi ngi amoon ci loxo bi ay gaañ lu mat juróom weer amul amul amul ñu war koo fay 800000 amul 4000 francs yu mu war a defee créer yu mu war a dindee opération bi ma dem ci maire bi wax dëgg jàppale na ma moom Pape Sarr adjoint maire bi ak directeur hôpitalu Matlaboul Fawzeyni bi ba fu opéré ko gratuite bi ma demee hôpital damaa jooy ñaan yàlla lan la may may ci sama xol ak sama yéene ci Touba ba ma mën a taxaw waa Touba ci jaarale ko ci hôpital yi bi ma demee hôpitalu Matlaboul Fawzeyni bi foofu rek lay njëkk a tàmbalee ma jóge foofu ku amul ku amul 4000 yoo daggee ticket bu la mille di faj ndax yow ñu la doon jox weer vingt cinq mille chaque mois ndax loolu mën na laa dimbali maanaam président Macky Sall xamul duggul biir Touba dafa yem Mbàkke rek na àgg naa Touba moom xamul lan la nit ñi jafe-jafey waa Touba jigéeni Touba man nag yaakaar naa nit moom mënut a tudd jafe-jafey Touba te man xamoo ma man Mariama Touré amul fu ma dul dugg bu ñuy wax Touba man maa tudde banlieue Touba loolu nit ñi seede la samay bokk samay xarit rek a fi teew fu ne laay dugg fu laa xawlu wala quwata illaa billahi alil azim loolu ku ko dégg sakkal say nopp senegal bi gën a ndóol bi ma juddoo ci Sénégal ak tey man moom laa dund li ma dund 2012 ak léegi ku ma waxoon dinaa ko dund ma weddi ko 2012 doon naa jàppale nit muy taxaw am loo mën waaye léegi loo jàppalee nit da koy lekk du la ko delloo. seen parti bi di bokk gis-gis Touba nee nañ da ngeen nangaa mus PDS bu dem ngeen wax dëgg yàlla man rek man Touré maa demeel Fatma Dieye mii man damaa jàpp ne ku liggéey vingt ans ci dëkk boo ci amul doole man dama am gëm-gëm ne man rek seul war na maa mën a gañe Touba man suñ ma poussé ma dem wax leen ak man waa am naa ambition pour diriger jigéen ñi waaye nag man wax dëgg yàlla damaa diriger ñoo xamante ni bi nii leer na ma ne muy samay mbokk muy samay xarit ci dëkk bi ak ñoo xam ne dama leen a fekk ca lañ ne di leen ca jàppale gunge leen ci man bi ma juddoo am huit ans ba tey dama doon dama dama damaa jiite lépp waaw damay jiite lépp jigéen ju ma gis fekk leen ñu dajaloo ñu ngi nii toog duñ ma bàyyi ma fen jàpp naa ne am naa initiative bu ma leen war a jàppalee ñu ñu ñu ñu ñu doxal seeni activité sans ñu sonn waa waa kooku sama xarit la sama xarit la dafa génn xam naa ne dafa ñëw ñëwagul waaye moom ah ñëw na ah je ne pas man li may doxal dama koy doxal rek man moom fi ma nekk ñeme naa fi ndax man samay mbokk a ngi ci samay ginnaaw samay xarit a ngi ci sama ginnaaw te Touba li ma fiy def wax dëgg yàlla leer na ma ne neex na borom dëkk bi te borom dëkk bi dina ma ci gunge ba ma àgg ci bu sooba yàlla langaamu boobu ñëw ci ñu dem langaamu boobu nga wax ah langaamu boobu bëggoon naa la cee tontu bu baax. déedéet wax dëgg yàlla man damay gor soo xamante ni bi nii du du ma jàpp di bàyyi te Cheikh Abdou sama xarit la sama càmmiñ la mënumaa bañ a topp ci ginnaawam li ma gis muy doxee neex na ma de neex na ma wax dëgg yàlla neex na ma maa ngi sant tamit ku ñuy wax sëñ Cheikh ñan bërki démb la ma président Pape Diop booleek moom wax dëgg yàlla ñu ànd jiital Cheikh Abdou suñu coordinateur ci nit ñu jiite ñuy liggéeyeek moom waaye li ma bëgg nga ñëw ci mooy Pape Diop mi nga naan day langaamu man ci loolu laa bëgg nga ñëw waa li waa xanaa seedes mbay dàgg sëñ bi lii ma la wan tey wax la ko tey ne la xoolal ñii ba xam ñii xaari milliards état di ko lekk naan ko est-ce que ñoom nga fi gisam déet sëriñ sii nga fi gis bu ñu leen joxoon pale baag la ca biiram soxlawuñ ko ñu wan ko ginnaaw yàlla rek ka leen ñor yàlla rek ka leen ñor te xam nañ ne man ambition bi ma am ay ati at di ko xeex wata aawunu anil birri wa taqwa jooju may xeex moom lañ àndeek man kon man war na maa gëm ne damay am doole te man damay dem man ku ma puus dinaa dem ku ma puusul dinaa dem ndax am naa samay bokk am naa samay xarit dëkk bii suñ ko xaajoon man kenn ëppale wu ma fi maa demeel Fatma Dieye sama maam uh, Serigne Touba sama maam Alaaji Malick ca Tiwaawan sama maam sëñ Abdou Karim Touré ca Daaru Minam may sama maam maam Cheikh Mbaye ca Louga sama maam man ku may téye fii lu ma fi bëgg am ko wax dëgg yàlla sama candidature parti bi ñëwagoo ci ñu waxal xam nga Pape Diop damay dégg ngeen naan day langaamu jéggal ma ak day day day day langaamook day toppe dama bëgg a leeral sénégalais yi tuuti ñu xam ko dañ dul ràññee tey tëb di wax président Pape Diop dama toog ak sëñ Baara Doli bàyyi Cheikh Abdou sama xarit mu ne président Pape Diop 98 xaalis bu ñu campagne ci PDS Pape Diop moo leen ko moo leen ko jàppale moo leen ko doon jox nee su ñu ñëwee ne président Ablaye Wade ñun de dañoo bëgg a def nangam mu ne leen dem leen ci président Pape Diop yéen xam ngeen Pape Diop dem leen ci moom. léegi ñuy dem di dem président Pape Diop jàppale président Ablaye Wade ba président Ablaye Wade falo bi président Ablaye Wade falo tamit jox ko cëram ba mu mat nii état bii fi nekk buruxloo ci suuf di jaar di yéeg di def jikko yu sew sewaat yooyu bañ ba foqati lépp ci loxoom président Pape Diop moo ko gënoon a mën mais deful lool dafa ànd ak sincérité président Ablaye Wade wóolu ko mu jox ko Dakar suñuy wax bilan président Ablaye Wade damaa bëgg ñu di ci jiital président Abla Pape Diop ndax 2002. la ñu jëlee Dakar ci situation yi 2000 la ñu jëlee dakaar ci situation bi mu nekkoon ma xam ko man juddoo dakaar xam la nekkoon Dakar tey su ma demee Dakar damay mel ni ku dem Paris damay réer damay mel ni ku wàcc Europe loolu grâce à Pape Diop. kon Pape Diop ku ko bëgg a xam da nga koy laaj wala nga gëstu mais doo tëb rek gis benn nit naan kii day langaamu wala lii ba mu defee loolu ñu jox ko assemblée nekk na assemblée ba jógee fa amul benn faute bu mu fa def tey la ko waa assemblée gën a respecté tey lañ ko gën a bëgg man nag du ma tëb di ànd ak nit koo xam ne wax dëgg yàlla amul valeur. man sa question bu bëgg si ngeen tontu si. waaw fii ngeen nekk si biir Touba. waaw député Sadaga toujours day faral di wax Pape Diop ak Pone yi leeral nañu ko. maanaam nag wax ju ñaaw moom damaa dégg kilifa gu mag bis. koo xam ne tey wax dëgg yàlla kenn la ci yàlla mën naa ko tuddee xalifatulaahi fil ard mu mësal yeewu rek tëb ne alhamdulilahi rabbil alamin ñu ne ko ndax lan mu ne tey laa sant yàlla bi ma amee bi ma amee tuuma ndax tuuma day wàllu gor man loolu président Pape Diop dafa war a sant yàlla ndax man bi ma ko xamee di topp carrière di ko déglu ndax man du ma tëb rek di ànd ak politicien ndax damaa seexlu yenn euh, si yenn yenn yenn jikko yi ci politique dama koo seexlu woon ba rusoon a dugg ci politique jàpp ne ku am maîtrise u alquran waroo dugg ci politique mais dinaa ci dugg ak sama dignité ak sama valeur ndax damaa toog xam ki ma dugg ci moom kan la laaj ko ba ñu wax ma ko ci biir tuubaa ma vérifier dossier am yëpp xool ko gisuma ci lu dul benn wax boobu bu ñaaw boobu Seydina Mohamed bu ñu ko daan dénk soxna mu vérifier ko amul amul amul amul amul benn benn natt wala benn benn tuuma du ko jël da koy delloo ay bokkam ne rus na maa jël jaamu yàlla boo xam ne bi mu juddoo ba tey amul natt amul tuuma loolu tuuma la ci président Pape Diop te ñu ngi koy tuumaal ñu ko gën fuuf ci dëkk bi ku ne la ñuy tuumaal bàyyi wuñ kenn waaye président Pape Diop su liggéeyee lim liggéeyal président Ablaye Wade defal ko lim ko defal lépp ci Sénégal ñëpp teg ci seen bët waru ko coup d'état wu ko waajuta yëkk foqatib siisam ba président Ablaye Wade wàcc wàcc gu rafet mu àndoon ak moom 98 ba mu falu tey jii mu ñëw 2012 président Pape Diop man maa leen ne su fekkoon ne 2012 demul wuti parti man ma boole ko ci nit ñi xamul seen bopp duma ma wax gëm sa bopp ndax damaa jàpp ne nit du gëm boppam day xam boppam yàlla la ñuy gëm. gëm boppam moo waral mu wut parteem nekk ci di di am ambition ba tey jii ñu ko ciy tudd ne kon tey nii ñu suule PDS lañ koy suule kon li ñu war a def mooy xam ne kii day nit ku gëm boppam bëggatuma dégg dafa war Ablaye Wade moo tax mu dem day dem yow sooy ànd ak sa sa directeur ba sa directeur dem retraite nga jàppale ko ba mu am société yow tamit war ngaa wàññeeku dem wuti société ko moom ku gëmul boppam nag moo fay des naan damay xaar nag doom ji màgg ma ànd ak moom gunge ko loolu man su ko defoon duma ko nangu yu baax ñu wax ki moom jikko yu rafet yéen sama mbokk yi nga xam ne da ngeen a rafet jikko yéen laay waxal dama toog ak sëñ Abdou Karim Mbacke mu baax mi ñu tase bërki démb Pape Diop toog 2015 mu ne ko yow da ngaa am maanaa danga am personnalité nit ku am fulla ku diiñ nga ci média la taxaw di ko wax ne ko yow ba mu Macky Sall toogee ba tey déstabiliser woo daraam yaa ngi toog di liggéey sa liggéey sérieusement te saa yu Sénégal soxlaa nga wax nga jug wax noonu la leader di mel président Pape Diop saa yu yëkkatee kàddoom wax Sénégal dinañ xam ne nit ku wax la nit ku am respect la waxi puuna yooyu ñi ko bëggoon a yàqal bëgg koo tuumaal ñoo ko yëkkati waaye Seydina Mohamed ko gënta lañ ko tuumaal tuumaaluñ ko président Pape Diop damaa bëgg ngeen xam ne président Pape Diop mooy maire maire du Sénégal mooy meilleur président assemblée nationale président Pape Diop moo lijjanti ko président ab Ablaye wadd mu jébbal ko sëñ Saliou kon kooku bu doon xeex Ablaye Wade du ko jox médaille boobu kooku bokkul ci ñuy coup d'état Ablaye Wade